xaaral eh, ma gaare sama sama oto bi parce que suñu fan. Mbacke yàlla maa ngi lay woo ba léegi gisuma la yow nag. waaw damaa génnoon waaye maa ngi nii di ñëw dugal ci biir nga xaar ma maa ngi ñëw. Amadou. waaw. jërëjëf waay. yàlla xam na ne nam naa la nag nam naa la. waaw maa la raw góor laay man ni maa la raw.

Nine gel bak. Yeni gideceğim. Ani Zainal ke game, mango jelle ini. Ha, tinggal. Jalan apa kayak? Kailangan bilwayan nangyari. Ganyan nga, sa mga di man ang mumbaga na mo ganun man sorry te o dial. teman nagbaman ang mumdana ka. Dari tiyakan lang sa mga ang mumdagan tandik dah mubagrek tayo ala tak bandang Ibrahimov. Kaya tayo gini sumasan yun wakda yala mayabal kiri mga kilifa nyumaya mo ko. Dah man ang mumdal kam na nipin tol mum. Laga na tiyakan hajit kita. Nga ganyan yung ganyan rek, sa itane ba yung dugo sunyong biir, cari ba yung dugo sunyong am naa ay ambition yu baax a baax ci moom de bu soobee yàlla. nga gën ñoo fasaale dégg nga. bu ñu fàtte benn yoon bi. incha allah rabbi. ana papa moom daa génn xanaa. man xam naa ne keroog bu ma fi mujjee sax doon nañu waxtaan doon naa ma comme par exemple war naa ko mën a jox sama numéro papa pour mu gën a waxtaan pour gën a xamante ak sama famille. pour tey jii bu demoon ba dara desul lu dul jàmm rek lépp mat ah dañuy ñaanal de bu ñu fàtte de alhamdulilah xana nga What jim iya, anak oh, con dia nggak kuah yang nonton what nggak kuah yang nonton nonton nonton kamu cuma bakke bor di ganju man duma sama rom hey man kira bor ni dama kabu barke yalla ki nga bëgg ni barke señ fallu mbagge man du giir nga bokk yow eh man duma sama eh sa loxo mala def am rek la def loxo fi la kenn laabutaaga am fi njëriñ de. looloo tax ngeen di réewante ba mu ndox fi jóg. du leer la wax laabutaaga. parce que paa yëpp bu doon Sénégal noq naa la. fii du Sénégal nag. bu doon Sénégal dama. mais amoo fula yow. yow paa bu toll taxaw fii. yow ñàkk a fula góorgóorlu jigéen ñi. eh li mu bëgg na eh, sa loxo bi dama sori. bu doon Sénégal la barke góor jigéen jóg noq naa la. yow di réew topp sa moroomu doom yow ki nga xam ne tey jii. bu maam loolu yoon nekk si laa wax. ñàkk fay man genre poil bi rek ñoo tax Sénégal. sa yoon nekk si yi mooy yan. sa yoon nekk si li nga bëgg laa bëgg li nga bëgg laa bëgg ba ma waxatee saaga man du ma la léegi. barke yàlla. ni ngeen defar. xam nga ne sa yaay ñàkk na la de xaw ma américaine bu lan ngay waaye sa yaay ñàkk na la kii moo bon. li nga bugg laa bugg barke yàlla. alors sax man du ma si defante ay affaire yi jigéen ñii laay kii maa moom la barke yàlla maa ngi moom la. Il oh oh Oh Oh Oh à table.